كم نعم القهوة بالقرب الحق يرضى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم أرض فيه اليمن للمتيامن أرض من أرض الله ñew في سوف سوف سوف ñëw ngeen ci suuf su barkeel ñëw ngeen ci suuf soo xam ne képp ku fi dëkk sa tànk sa aajo faj loolu la yàlla dogal ba tax na ñoo leen di wax bismillah di nuyu borom dëkk di nuyu imam di nuyu monsieur le am di Moustapha ayadakallahu wa nasra ah, golo genn golo gudd na ah, waaye loo ca laal borom yëg ko waaye Amdi Moustapha mm, ñu ngi lay sant ci turu famille bi gis neen ni nga fonkee dëkk bi gis neen ni nga fonkee sin maxtaar gis neen ni nga fonkee kër gi yàlla dogal na ba nga dëggee Koungheul ba léegi mosoo tardé ziar mosoo wax ne am naa empêchement mosoo layee ngant waaye heure bu ne danga raam ànd ak ñun fekkale suñu bés bi te ñun bés bi lañ am nag nga waxal waxoon naa ko daaw bés bii ku ñu ko fonkal la ñu fonk ko fonkalewul ñu jàmbur si yow loolu yàlla dogal si ñun beneen bi si def nag yàlla dogal na si suñu duñu wax luñ gëmul mukk si kaw suuf heure bu ñu ko dalee rek yàlla bu kàddu ga yegg kon Amdi Moustapha ñoo ngi lay sant encore une fois di ko yëgal ñi nga àndal ñëpp mosoo tànqam lu bés bi mosoo tànqam lu suñu maxtaar mosoo tànqam lu suñu lenn kon nag yàlla bu la yàlla tànqam lu yàlla bu la yàlla tànqam lu yàlla na yàlla yokk garab gi yàlla yokk kattan gi yokk wërsëg gi yokk am-am bi ñu ne yow si CDD ba ñu ne yow si lépp mosoo joxe empêchement mosoo joxe ngant te ñun dofuñ nag dofuñ xam ne lu bari si kaw suuf bëri na kuy layee ngant te amul benn ngant te lépp dañ koy xam waaye nekkul lépp luñ xam wax ko waaye ñu ngi lay sant di la gërëm di la nag seedeel lenn waxoon naa ko fi benn année si kii toog di sëriñ Mor léegi si xabru ba Mansour Fall wax na ko fa te chaque année danaa ko répété mooy ñun ku ñuy sagoo la suñu sag la ñun kër Abdou Mati si njabootu Abdou Mati si murjë si suñu sag la dama gis benn xaside boo xam ne maa Abdou Aziz si da baax moo ko wayoon Serigne Maodo xam nga ko am ni Serigne Maodo si alaaji Abdou ko am ni alaaji Abdou di way doomam di ko wax ne ko fa min nii ila faqril ashirati malikin ku dégg arab xam ne wax jooju kuñ ko wax mën nga war ngaa dugg si biir suuf kon am na alaaji Abdou bu demee ba xool sëriñ Maodo da xool ko sa bëtu doom waaye ne ko yow Maodo waxuma sa jureel gu ma jur waaye jàppal ne képp ku bokk si Seydi Hadji Malick yow Maodo pour tiituroo nga yow la njabootu Seydi Hadji Malick di tiituroo giiru Seydi si yow Maodo mii waxuma maa la jur waaye jikko ji am ak xam-xam bi nga ku bokk Seydi Hadji Malick moo lay tiituroo waaye tamit sëñ Maodo mii ñi dañ koy tiituroo suñu tiitar la suñu sag la suñu lépp la ndax bés bii ku ko fonk la ñu dañoo réel am nañ di wax rek waaye lépp bés bi moob la alalam fekkee wu ko coonam fekkee wu ko poosam fekkee wu ko daram fekkee wu ko et bu bés bi jàppee bis bi ba keroog bi bés bi di jeex murti si du tëdd du nelaw du lekk ba suur du naan ba man du du du naan du nelaw ba yandoor rien que bés bi jàllut fekk du am jàmm waaye yàgg naa ko wax ne ko demal am na ñu nekk sa gannaaw waxuma ñun sax waaye am na ñeneen ñu nekk sa gannaaw ñoo xam ne gisoo leen muy sa maama nga sa gannaaw maam waxtar pendaak sa gannaaw ñu ngi leen di wàccee ñoom ñëpp seen wàccuwaay di leen wax bisimilah fii si siin maam maxtaar tabarakallahu maam maxtaar moomu di maam yi ñëpp foo dem ci senegal fekk fa maam maxtaar ah kon ñu ngi leen di dalal di leen wax bisimilah di beral itam nuyoo sunu kilifa ndax tabaarakallaahu Serigne mo wax nako leg moy Serigne Abdou Mati si du bay alxaaji Daam si alxaaji Daam si alxaaji Abdou Mati si alxaaji Aliou si Aliou Mati si ak Xujja Mati si ak Serigne Mbay si ñoom ñoo bokk benn baay Serigne Mbay ak alxaaji Daam ñoo bokk ndey ak Abdou ak baay alin mati ak xujja mati ñoo bokk ndey ak baay tabaarakallahu seen njaboot moo nekk fii ci njab ci ci ci ci biir tànt bi dajee bi ci seen njaboot la sababu kon ñu ngi beral nuyoo Abdou Mati moom nga xam ne suñu kilifa la sunu lépp la ndax sunu baay la ci turandoo waaye sunu mag la ci baay ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko nuyu bu baax di ko wax bismillah Euh, mu ñëw fi ñëwal fi kilifaam ñëwal fi magam di sëriñ Mor si Baye Dame tabarakallahu woote na ne li ko gënaloon muy mu ñëw ànd ak ñun jataay bi waaye yaramam moo ko mayul loolu moo sababu yebaloon na ay xale ni jiitu sëñ Abdou ndax sëñ Abdou mi ngi toog mu nga jullee jalak tuuti ziyaara moo fa am waaye kóllëre gum sa xëb njaboot gi nekk seen maam nekk itam seen baay moo sababu mu bàyyi loola ñu tas rek mu defaat demi tour ñëwaat fii si Sine Makhtar kon ñu koy nuyu di ko wàccee wàccuwaayam di nuyu tabarakallahu sunu maire commune alhaaji Sader Dieng tabarakallahu di ko ñaanal yàlla wér bu ànd ak kattan ah fu mu bëgg a yóbbu commune bi yàlla jàppale ko ba mu yegg fu ko kawe mu ñëwul mu yebal ah ki nga xamante ni mooy deuxième adjoint ànd ak suñu jarbaat alxaaji Ibrahima Dieng ñoo ngi fii ci mbooloo mi ñu ngi leen di wàccee seen wàccuwaay ndax ñoom ñooy suñu njaati gi su préfet moom mooy seen njaati gi waaye ñoom ñooy suñu njaati gi tey nag yàlla dogal la ñoom ñaar ñëpp maa ànd nekkaat seen njaati gi di jéggalu tam su préfet mm-hmm. di la ñaanal yàlla mm-hmm. li nga xam ne yow yaa ko bëgg yal na yàlla defal la ko ci barki sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu agsee tardé nen mm-hmm. li ko sababu dañoo amoon ay gan yoo xam ne xamuñu leen mën a def xam nga nit ki am na fu ngeen toll doo xam looy wax dama siggi rek seen oto yi di ñëw ci wàccaay boobu moo sababu mu jiitu nit yi waaye ñu ngi ciy jéggalu bu baax ndax li yoon defoon moo ñu taxaw ànd ak moom dugal ko ndax suñu gan la ñoo ko war a duggal ci biir kon ñu ngi jéggalu loolu bu baax di jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp ñu teewewaat déwén te déwén gënal ñu leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi si si turu sa xarit sa mag Socé Diop Dione président du conseil départemental ñoo ngi lay nuyu Il lay ici di nuyu sa njaboot ñoo ngi nuyu borom di nuyu le représentant de l'exécutif monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Idemurit, M. monsieur Amdi Moustapha Ba di nuyu le maire ou bien la représentante du maire de la commune de Saly Escal, di nuyu chef de service yi accompagner délégation préfet bi di mbooloo mi fi teew yëpp sëriñ bi sa sa xarit Soosu Jóob nee na ni ki daaw heure bi ñu ngi fi woon ren également ñu teewee ko ñoo ngi ñaan yal nañ ko teewee ay déwéni déwén sëriñ bi sa mag sa xarit nee moo ngi féetale kóllëre seen diggante yéen ñaar waaye tamit moo ngi féetale kóllëre digganteem ak sa waajur bu góor doon magam doon xaritam doon lépp nee na bu sañoon tey moom mooy fekkee bis bi ndaxte moom kat fii ñaari cër la fi am

terewul yónnee na fi délégation bu mag muy man mi doon son premier vice président ànd également ak suñu nijaay Babou Sall doon président de la commission religieuse moom mi nga xam ne moo dox diggante conseil départemental ak këru diine ànd également ak suñu yaay aji Fatou Bago Toog moom mi nga xam ne fii la dëkk ànd également ak suñu yaay Njéri Lukaar ñoom ñëpp doon conseillère ànd également ak Ibrahima Dieng doon conseiller départemental waaye moom dafa mel ni ñaari cër la fi taxawee macha allah kon sëriñ bi sa xarit sa mag na moo ngi lay gërëm moo ngi lay sant nee na ñun conseil départemental ñëpp leen bokk jaboote ndey ji rek lañ mun tëddee. mboolem xew-xewu diine boo xamante ni am na si département bi ak nu mënta mel xamal ne xam ne xam ne xelam ak xolam mu fa te lu man dina ko ci def أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صاحب الحق عين الحق طلعة الحق وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بن سنتي الله جلد سيونت صلى الله عليه وسلم دنيو نيو نيغا خمنا تاي نيو نيو تي جوتاي بيب دي تي ديوتال نيو بي نك اك امام di nuyu comme ni ñu ko waxee léegi le sous-préfet Amdi Moustapha Ba mi nga xam ne mooy suñu kilifa ci lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu administration di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam fii nga xam ne mooy Sine Ma Maxtaar di nuyu président conseil départemental bu Koungheul ak délégation bu mu ànd ak yëpp di nuyu sëriñ bi ak njaboot gi yëpp di ñëw nag di jottali kàddu yi nga xam ne ci ndigalu deuxième argent au maire Atta Seck leen koy jële wax ko ci turu maire bi nga xam ne moom mooy El Hadj Sader ndax dafa am empêchement moo waral ñëwul mais bu dawutoon loolu dina de ñëw ñu wuutu ko fi nag ci wuutu goo xam ne dinañ ci lott lool waaye nag dañuy ñaan yàlla mu may ñi xarañteef goo xam ne lañ doon séntu ci ñun dinañ ko ci def ndax arab moo ne inna rasula bi xadiril mursil donc sëriñ bi euh, monsieur le maire nee na mu ngi lay sant di la gërëm ak njaboot gi nga ànd ak yépp ginnaw bu mu dalale say gan yi nga xamne ne ñoo jugee ci gox yu fasantikoo yi nek fi nga xamne ne commune bu Saly si nekk ci département bu Koungheul na nek Sénégal yépp ñi jugee ba Dakar ñi jugee fi nga xamne ne moy mooy Gambie donc ñu lañu dalal ñom ñep di leen ñaanal Yalla ñu wat ci jamm di ñaan également ndaje mi nga xamne ne ndaje diine la pour waxtaan ci li jëmal nit ñi ci diine monsieur le maire nee na mu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax donc di la sant di la gërëm xam naa kaddu yi du mën a gudd kàdd yoo xam ne rek ñaan la nee na mu ngi sakku ñaan ci sëriñ bi nga ñaanal ko yàlla yan bi nga xam ne moom leen ko yenn ci commune bi nga xam ne mooy commune Saly Escale yàlla yombal ko ko ba mébét yëpp sotti donc wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. te yàlla sunu borom bi ñu julliwaat. ci sayyiduna muhammad sangu sangi sallallahu alaihi wasallam di nuyo mbolo mi fi tew yeb nuyo bi gëna tedd ci l'islam dekk bi nak bu mo fi ñëwé bu mo bëggé wax tamit duma xam duma xam lu may wax dekk bi nga xamne mo nek berceau de la communication deuk bi nga xamne ne mooy berceau wu élégance wëlbatiku nek berceau wu relation bilatérale ku tudu tudd tudd gambi tudd fenen nek deuk diplomate nit ñu xam aduna xam li yalla sun borom bi santane xam li nga xamne ne mom moy ndénkante mi bam jeex tak te ñuko ko di ko bi nga xam ne ku ne xamna na dabaax malik mam Abdou Aziz Sy bu demee ba mëna tok ne xaw ma yi fan la féete ci aduna waye lima woor moy dinamo dynamo bi lañu tal ñom ñep mu ngi seen mata dekk bobu nak bo fa eh, di sagaru sous-préfet jël fa kaddu du yomb mam Abdou nak lam xolon bané fi moy berso bi bo duggé touti ci bir te baña a momuma sax xuus bi waaye so jëlé njabootu mam Matar Pend si nga jël Mor hadisi, si jël mam malik Basin si ñoñu dem dugg ci famille Cheikh Ahmadou Bamba khous ci ba sori ki sañ ci daru salam kële sañ ci sid ñaari dekk yoy ñuy ay référence tay ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba mu ku jël Mor Binta si ci njambar ak ci fit ñepp doon ko woyé mbeur mu and ak nit ñu bari ñu dem dimbalé ji nak Seydi Alaaji Malik senegal nak bo fi genné njabotu Seydi Alaaji Malik genné fi njabotu Cheikh Ahmadou Bamba ah, di nga tibbaat waaye nag yaakaar le ne le ëppoon gor gi da ko jël ba pare kon moo ngom gor gi mam makhtar Pend mo nangulon gaaya ba pare avant mam Abdou Aziz di wat di ko tuddee nañu ay dynamo bi kon moom juumul su ñëwee ci dëkkam nag war fa teewal borom réew mi du ñu mun nag lu dul nag di ñaan ngeen ñaanal réew mi jàmm am fi ngeen ñaanal réew mi koom-koom ngeen ñaanal réew mi fi mu tollu tey mu jaare fa yokk ba faw yàgg nañ koo ñaan te ku xool Sénégal nag xam ne nag arrière wul Sénégal a ngi dem ndax li ñu wër yii yépp amu fi woon làmp yi ni mu mel ni tey doon nañ fi tànt te làmp yi duñ fi nekk ndox mi bariwu fi woon Saly Escale tey boo toogee ngay lim 42 villages da nga koy lim 42 villages yu ànd ak courant amu fi woon yoon yi amu fi woon kon o tey Sénégal a ngi def ay jéego ñaanu ki tëdd fi tey te nga xam ku bëgg sa affaire baax so duggé ci dëkk bi jarul ngay ñaanloo kenn mën nga waaxu ba fekk ko fa mu tëdd nga fëgg ko nak pañé ko ba dëgër ne ko gi dama bëgg nak li nga def ci sa mor yi lolu bëggon na lañ ko laaj góor gi ñaata mor la amoon dinañ la waxal mor baasin dinañ la waxal mor khadi dinañ ci tégal yeneen mor ñun royuwaay lañ ko def ndax ku maam Abdou Aziz taggoon rek ñun am na foo xam ne mun nañ dafa teg euh, loolu daal sëñ bi mooy benn kàddu bi di ñaax askan bi na ñépp delluwaat ci toppatoo seeni wasila mais balaa wasila nañ toppatoo seen ndey nañ toppatoo seen bàyyi jog ci teg réew ak lu mu ci mën a tegaat sëñ bi daal ñemewuma fee guddal ndax bañ juum ñu ne sous-préfet waxoon nangam sàkku ñaan daal moo ñu fi indi tey yàlla ñu yàlla dolli sutura yàlla ñu yàlla ubbil buntu baabul xayri teg ci boobu sa buntu baabu salaam yu yaatu lool jërë ngeen jëf merci beaucoup.